Euh, jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat la di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def kilifa yëpp wala sëriñ boo xam ne naa ci biir site bi rek fas yéene naa ñu waxtaan ci xam-xam ci bu baax a baax. acca jëmm ji ngeen di gis nag tey mooy suñu njël benn émission ci biir site bi waaye fas yéene ñoo waxtaan ci xam yaatal ci bu baax a baax ngir ñi nga xam ne saa su nekk euh, safoo nañu site bi dinañ ci jëli lii di njëriñ acca ki may dalal tey moo di sëriñ siidi Mokhtar Fall tey nag dinañ waxtaan waxtaan ci xew-xewu jamono di actualité waaye ponk ponk yoo xam ne ci xam-xam lay jëm dinañ ci yaatal bu baax a baax ajee sëriñ Sidi Muxtaar damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah aoudu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi barkeb xaadimu rasulillah sunu lépp borom Tuubaa la Cheikh Bamba xaadimu rasulillahi mbokk yi noo nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam muy nuyoob lislaam bi gën a tedd muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi nuyu biir réew mi di nuyu bitim réew di nuyu képp koo xam ne suñu am di jàmm nga ñu am benn alaqa noo ngi lay jox sa wàccuwaay di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw loolu nag li ñu war a jiital mooy ñaanal Serigne Mouhamadinil Muntaqa yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram Serigne Bassirou Anta Niang moom borom Daarul Muxti noonu lañ koy ñaanale alhaaji maam Cerno moom sëñ Cheikh Awa Balla di ko ñaanal seriñ sëriñ Modou Mbend Fall ak mbooleem xalif généraux yëpp yi nga xam ni seen yëngutu yëpp mi ngi ci dina ñoo ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex sëñ jërëjëf euh, Serigne Sidi Moukhtar Fall ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, seen yooyu seet yooyu tànn ak daal ñu ci kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm acca tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam ci lu toll ci juróom-ñaari ponk euh, waaye ñaari pàcc laa koy def ci diggante ñaan ak faj dinañ ci waxtaan xew-xewu jamono du leen daam lu mu gis ci diggante président Ousmane Sonko ak kii di président Macky Sall video bi nag bu leen ko kenn nettali topp leen ko ba mu jeex ndax xam na loo xam ne gis na ko te nañ cee waxtaan bu baax. acca waaye dama ñëw ci ayatu eh, kursi lool bëggoon naa eh, xam lan ngañ ci mën a baaxee laata ñu jàll ci yeneen eh, ponk yi ñu war a waxtaane waaw sëñ Cheikh noo ngi lay delloo nuyoo bi di rafetlu bu baax a baax di ñaanal bu baax seen site bi di 221 people suñ borom kars nañ ko te yëkkatil ko ndax seetlu nañ ni mboolem ko fi jaar ci xam-xam rek lay wax te loolu lu am solo la ndax xam-xam dafa dafa jot ci jamono ji ñu ñu ñu ñu ñu ñu indiwaat ko baña topp rek rythme jamono ndax ñu bari jàpp nañ ni xam-xam raaf na fekk fa ndox daan taa ba léegi ko dem fekk fa tep-tep euh, loolu it dina am maanaam maanaam leeral guñ ci leeral euh, tey jii bu fekkoon émission bi am na woote international ak national euh, di ngeen xam ni seen site bi yàlla nar na cee def tawféex ndax ni ngeen ko jógtee ci xam-xam dina tax lu bari leer waaw aaya bi nag di ayatal kursi yu day aaya bu am solo boo xam ni ak am soloom kenn waxu ko kudul yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni mooy xayru xalqilaahi wax nañ ni mas naa laaj kenn ci saxaaba yi ni ko ndax xam nga ban aaya mooy aaya bi gën ci alquran ñoom dañoo amoon i teggin ndaw jiitu yonent bi alayhi salaam ñu laajaat ko ko mu daal di tàmbali ne allahu laa ilaha illa huwa ba aaya bi jeex muy aaya boo xam ni e, jullit bu ne war na koo gëstu xam ko ndax am nay mbóote ki sew-sew yi ne ci biir yoo xam ni xam gi mënta ñàkk jamono jiñ toll dafa doy waar te jëmmi aaya bi xëy na sax xajul ci émission waaye loo gis benn ci lay tàmbalee ci wàññi waaye jëmmul bu mëtutit dinañ mas a ñëwi bis boo xam ni dañ koy def ay épisode ba nit ñi mën cee jariñoo aay la boo xam ne ci wàllu kaaraange ñëpp nungul nañ ko ni amul lu ko ëpp doole ci wàllu kaaraange ñëpp nungul nañ ko ko kenn ëpp ko maanaam ay njariñ ci aaya yi ci lu jëm ci wàllu fatxu kon ay njariñam dañ koy wax nit ñi waaye am na ñu ko gën a xam sax ni ñu koy waxee ñu nu ko gën a xamee noonu waaye da ca am yoo xam mbóot lay doon ci biir ndax buñ ne ayatal kursi yu ñu bari dañuy jàng jëmmi aaya bi waaye loo gis am na zaahir am baatin zaahir si mooy allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayumu ba ci wa huwa aliyul asim baatin bi mooy sew yi nga xam ne nag wa anal fadla biyatu laa yuuti man yasaa wallaahu zul fadli asim da ci am loo xam yàlla doo koy yenkewal ñenn ci jaamam ñi Seydina Ali radiyallahu taala ko yàlla dolli leer saxaaba yëpp wax nañ ne daana wax ni maanaam tomb ba bas la muy basmala muy nuqutat boobu wax na ni bu ma yónent bi joxoon ndigal dinaa ci saraalu diis juróom-ñaari giléem kon loolu day wane ni yàlla yemalewul xam-xam waaye aaya la boo xam ni bu dee ngërëmul yàlla li ñëpp bëgg ci la gën a gaawee dañ ciy jukki tuuti rek am luñ ci leeral euh, bu ko defee mën a jàllaat ci yeneen point yi ndax xat-xatu jamono. boo xoolee jëmmi allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayumu boo ko déchiffré maanaam chiffre mystique bi dëgg-dëgg dalay jox 413. 413 nag moo jàpp al awnu minallahi moom 413 moo jàpp ridwanullahi moo jàpp ridwanullahi muy ngërëmal yàlla nga xam ni bari na nit yàlla yoo xam ni jëmmi aaya bi sax duñ ko waxtaanee ndax xam-xam yi ci nekk ak doy waar gi mu waar soo jëlee 313 ma 413 nga euh, diviser ko nga nga diviser ko par nga nga multiplier ko par 40 dalay jox 16520. 16520 boo ci yokkee allahu mujibu da lay jox 16641 loolu boroom xam-xam yi yëngu ci batin ñoo koy xam nga xam ni moom la ñuy wax am xawiyun di 129 latif bu ñu dara bu ci 129 euh, lim bi bu ko nit xamoon te xam dëgg-dëgg fa mu koy jaar mën naa bañ a soxlaati dara ci yàlla ci àdduna ak ci àll àllaaxira ndax lépp suñ borom dina ko ko defal waaye nag daanu daa dëju suuf te wolof yi dañuy wax ni ñëpp bëgg a dem kaw waaye suuf du ñàkki gaay waaye ñu tàmbalee ci noonu ci ayatul kursi yu waaye mënuñu koo jeexal euh, dinañ ñëw ci ay euh, maanaam euh, ruuf yi dinañ ñëw tamit ci kalima yi ndax am na luñ ci war a wax loo xam ni ca kanam lay ñëwee ngir leeral ci ni jëmmi la joo xam ni mën naa dafxu mën naa jalb waaye buñ ñamb rek ci jàng ko nii nañ ko gëstu xam ko bu ko adduna bépp xamoon te topp ko ndax afdalul aaya min min min quraan loolu du du caaxaan jëmmi alxuraanul karim ni mu tedde ñu ni benn aaya bi mooy sangam ndax ay alxuraanul karim suratu baqara mooy sangub saari alxuraan yi waaye baqara ab sangam mooy ayaatal kursi yu te am na ci biir lu tax ayatal kursi doon ab sangam sa sangub eh, ay alxuraan yi moom it dinañ ci ñëw incha allah rabbi. kon am na solo yaakaar naa fa Serigne Sidi Mokhtar Fall tàmbalee foofu moom taw feexe na acca dañuy dox ba léegi wéyal waaye dama ñëw ci seet ñen ñi ni koy woy listixaar lan nga ci mën a baaxe pour ñu lay door a bàyyi tey xel. waaw listixaar moom mm, eh, baat bi dafa arabe waaye mooy seet rek seet nag dafa bari ay façon lool waaye kenn ku ci nekk ak la la ci yàlla may ñii dañuy seet ci ndox. ñii di seet ci euh, suuf ñii di seet ci ramlu ñii di seet ci pitaaw ñii di seet ñii di seet waaye bu dee ñun ñi nga xam ni euh, wala ak ñu mel ni man dañuy yëngutu ci tur yàlla bu ñuy seet dañuy seet ci la yëngutu muy tur yàlla ci ayatul kursi yu am na ci yoon moo xam ni boo ci xoolalee nit wax ko ay mbiram di nga dégg baatu li nga ma wax musuma ko dégg ci ku dul te lii may wax mat na seede mm-hmm. ndax àddunaa may déglu fi ñu toll tey jii bu fekkoon lu ñu mën a woote la nit ñi di def contribution li ma la wax dañ ko déggal ndax euh, bu fekkee da ngay xoolal nit ki li ci war a jëkk mooy nga ragal yàlla taqwallaa bu njëkkee ci yow li nga koy wax mu leer ni la di nga laloo sa loxom di joor boo ko ci waxee naka su dul noonu bis dina ñëw nga wéet ak sa borom di nga ko wax la nga gis te muy dëgg seet nag jërul wax nit ki lu ko jaaxal wala lu ko tiital euh, da ngaa fexe ba nit ki njariñ li li nga amee yow mu jariñoo ko ndax ñu bari dañuy fàtte ni kiy liggéey tur yàlla la ko war a ñor mooy jëm yàlla ji ak doomu bi wala xadd karam naa bani aadama yàlla doomaadama la gën a fonk ci lu mu bind su jaaxalee ba ñëw ci yow na nga jël ci alxuraan wala nga jël ci tur yàlla ngay liggéey xoolal ko la yàlla wan nga mën ko koo leeral bam leer foofu it am na sew-sew ci wàllu listixaara eh, dinaa ko leeral muy gént lu am solo la ci nit ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day listixaara ñu wan ko dara ci ay nelaw mu xëy du ko mën a tawil loolu problème la nga gis koo xam ni day xool seet yoo xam ne dañ koo tënkoon ci doomi ramli li bu kiyee nangam bu defee nii nangam nangam waaye bi nga xam ne nag moom da nga koo xool suñu borom am na loon nga mun koo tawil kooku dañ ciy wax nit sax loo xam ni ku dul moom ak yàlla xamu ko te loolu jaar nañ ceeg nit ay barab yu bari yoo xam ne bu fekkoon lu ñu mën a la ñu bari dinañ woote dëggal ko euh, Euh, loolee nag bu fekkee danga koy def listixaara boo tëddee ñu wan la liñ lay wan nga xëy ni ko gis naa nangam ak nangam ak nangam day dëppook li nekk ci moom te loolu day doon loo xam ne ku dul moom ak yàlla du ko xam waaye wuute na nag lool ak seet yi xew léegi nga xam ni da ngay bëgg a wax nit ki lu ko jaaxal ba mën koo nax loo xam ne day tëj boppam waaye wax ku lu muy dund te muy dëgg nga maanu ca ndax wërsëgu nit ki xoolal nit ki tiitloo ko taxul nga mën ko jariñoo xam na ni lii nga ko wax dégg la ndax xamoo ko ci aadama ak ci awa nga maanu ca su waree jëflante moom nga xool ni jaam la bu lott war a ñëw jëflante ak yow nga jëflante ak moom ci njekk ak taraange ngir jëm yàlla la cay juddoo nag loole sart lay doon su ko mënee xëy su ko mënut it nga yolomal ko ba keroog mu di ko mën loolu nag mooy jëmmi seet ak li saxaara waaye dañ ciy jëfandikoo yoo xam ni ñi ñuy seetaan di ñu xool xam nañ ci ñun fan lañ ci mënee ndax duñ ci wax mukk loo xam ne nafsu su tax tax ñu koy wax déedéet wala walaahu taala alam ñu njëkkanteeku waxtu wi jàll ci beneen ponk damay ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg falu waaye ci mbiram follak bëgg naa ñu waxtaan ci. waaw loolu moom eh, lu lu lu doy waar la muy mbirum falu ak folli am na danger bu rëy nag bu ci nekk ndax ki ngay fal am na ku ne ci wet gi bëgg ko folli kooku danga ngaa war a dajeeg moom. ki ngay folli am na ko ne ci wet gi samp ko da nga war a dajeeg moom moo tax mbir mi bari na lool nag ñu ko sóobu waaye day mel ni xam-xam bi moo war a jiitu laa taf'alu shay'an bi xayri izni fal isnu sartun fi abolisan yi bu fekkee nag amoo xam-xam bi na nga ci am ndigal ndax ndigal loolu day mën a wecc loole ba lu la nar a mën a baare ci diggante bi ndax shayatin yaa ngi ci diggante bi rab yu bon yaa ngi ci diggante bi nit ñu soxor ñi ñi ngi ci diggante bi Euh, bu dee ci ñun fii ñuy waxee nii muy euh, turu yàlla wi ñu waxtaane muy ayatul kursi yu di ayab alxuraan màgg bi am nañ ci yoon woo xam ni maanaam 555 la xam naa nag damay junj ndax bari na borom xam-xam yu seetaan yoo xam ni dañuy yor seen big waaw di note te am na yoo xam bu ñu ko notee pour ñu man ko kii day yomb waaye dañ koy tënk rek nga xam ni am na ci yoon woo xam ni boo ci defal nit même bu bidduwam demoon ba yàqu nga xam ne da ngay gis koo xam ni day day am xéewal wala mu ne ci place boo xam ne wala entreprise nit gis ko fexe ba yàq bidéwam mu mel ni dafa xaw a mel ni ku yore bidéwu mariq lu mu dugg mu yàqu fekk dañ ko ko yàqal waaye nature de nature noonu léegi nag kooku am na nooy jëfandikoo moom ci aaya bii di ayatul kursi yoon woo xam ni riyaada lay doon kenn dootu ko mën a yàqalati ay mbiram day dund te dootu dee ba mukk ndax ñi ngi koy def ci tur wi ci biir di alxayu am na nuñ koy eh, batsoo dugal ko génneeg yu mel noonu rek nga xam ni nit yàlla ñi ñi liggéey kurus xam nañ ko jël turam ak turu juróomi jigéen ba samp ko dekkalaat biddiw bi te ci biir dekkal boobu <clears throat> kenn dootu ko mën a teeray àdduna lañ nekk da ngay gis koo daan gis mu am situation mu jekki-jekki gis te sew sew boobu waajuram mu jigéen lu ñu bari di ko teg fekk waajuram liggéey na mais nit ku soxor mooy ñëw fexe ba xam lu bari ci moom yàqal ko kookee nag bu yàlla dogalee mu doxa doxa dox ba gis koo xam ni mën na koo dimbali ci nii ma koy waxee mën na koo defaraat ba mu teguwaat fa mu tegu woon te loolu lépp ci xam-xam lay tegu ak ci tur yàlla nga xam ne du am dara loo xam ni day am lu mel ni xeetu zulmaani yu boo xam ne suñu borom da koy aaye te sa diggante sa diine di ko di ko bañ waaye lépp du génn jëmmi aaya bi di ayatul kursi ndax bu dee fal nit ci la gën a gaawee bu dee euh, defal nit fatu ci la gën a bu dee aar nit ci la gën a gaawee ndax bu ñëwee ci jëmmi kaaraange xeeti faj ak yooyu dinañ leen ci leeral loo xam ni ñi may déglu dinañ xam ni lii ma wax ni xaqiqa la ndax ci ayatul kursi yu uh, la la nekk acca kooku mooy Serigne Sidi Mokhtar Fall nee naa leen uh, fexe jëflanteeg moom doon na loo xam ne lu am solo la ndax doonat ku naqaree jot numéro yi ñu ngi doon affiché ci barre decran bi yow contacté ak moom rek dina jëflanteeg yow ba soxol sedd guy acca ñëw naa ci koo xam ne dafa tëju loon ci mën a baaxee nit ku tëju. waaw sëñ Cheikh nit ku tëju nag day am euh, lu ko lu koy waral euh, lam dañuy delluwaat ci ginnaaw tuuti ci ci ci ci xool bi waaw wala umu nit dina umu tëdd di nelaw raw xaanam yàlla yankewal ko raw xaanam mu gént la waral tëju ga bu bu la ko nettalee te nga mën a tawil gént di nga ko mën a wax loo xam sax du jar muy sonn saral la bu muy génne doon tekk nag alxuraanul karim moom mooy jiitu du ñàkk loo jëflanteeg moom waaye dina ko wanaawan lan moo ko tëj su fekkee lu muy def la mu bàyyi ko ndax nit ki dinay def loo xam ni da koy tëj ni ki mel ni ñàkk a mën a sellal sa jëmm walla euh, yoreel nit bor ba noppi te fayoo ko ko wala nga nekk sa waajur am àq ju dox sa digganteek moom te matale woo ko wala nga yor sa soxna am aq ju dox sa digganteeg moom te mataloo ko yooyu ay sew sew la yoo xam ni mën naa tëj nit nga sonn ci di ñaanlu te dara du génn fekk la ko waral am na sababu nusul boo xam ni da nga ko war a xam soo ko xamee nag ka dimbali moom mën na laa dimbali ngir euh, li nga ñëw wax ko ko mu leeral ko leeral la ko nga mën a faj doole bu dee loo doon def nga bàyyi ko bu dee ko amel xàq la nga fexee faj àq jooju su fekkee sa wajur day dund te bëggut ci nga fexe mu bëgg ci su ko defee loolee nit ki tëju boo xamee loo ko sabab man nga ko daal saafara bu dee ci jëmmi aay bi di ayatul kursi yi moom ñi ñi ciy jëf leen del ci wàllu tëju bu fekkoon euh, aaje na ko ñu mën a euh, jox vocal nga déglu wala nit mën a woote def def interview wala mu seede di nga xam ni lii ñuy wax nii xaqi xale lu wér la ndax euh, xam-xam la boo xam ni yàllaa ñu ko yenkawale waaye fi lañ ko fekk nag te it nag daa doon loo xam ni ndono lay doon ndax ñi ñu xam umpale wuñ ñu am na koo xam ne bu nee takk gis gis gis ma wax rek dina xam ni kii di wax nii lii muy wax nii xam na ko bu baax a baax te waxiwu ko bakkan ndax lu ci ëpp euh, boo xësee am noo noo demee am ay kilifa day am loo xam ni bala nga ko wax na ko seetaat doo waxe mukk loo xam ne bakkan nga koy waxee waaye jëmmi tëju moom jàpp naa ne sax man ku ku ma gisee jàpp naa ne war naa mën a faj aajo aajo nit ci tëju ndax xëy na lim la yomb waaye nag képp koo xam ne yàlla dogal na nga tëju il fallait que ñu xool sababu nu sulu tëju bi lan la suñ la ko waxee nag ba mu leer la nag su fekkee nag moom sababu dindi ga euh, jubu na la suñ ci waxtaanee mën nañ laa dimbali ba loolee dañ loolee am na lu luñ ciy bëgg a leeral tuuti muy jëflante gi ñuy jëflanteeg nit ñi maa ngi ci ma lancé waale lancé waale appel mboolem koo xam ne yaa ngi yëngu ci asraar wala nga yëngu ci tur yàlla nañu am yërmaane bu baax ci jaamu yàlla yi ndax euh, nit daa war a am kóllëre ak ki muy jëflanteel man bari na ñu may déglu xam ma tey du ñàkk ñu leen ci woo def seede yi may wax ci ci ci ci ci ci biir ci biir site bi euh, am na ci ñoo xam ni sama làq ak ñoom dem na ba weesu nañ jëflante ci wàllu ñaan ndax lan jàppin wu ma leen jàpp te jëmm yàlla rek tax ndax nit ki ñëw di ñaanlu du ñàkk xam-xam a tax mu ñëw de du doyee de tax mu ñëw yàllaa dogal ni xëy na yow yitte ja ngay am ci jóg 3 heures matin wala 4 heures du matin nekk sa borom xëy na moom amul temps boobu wala yàlla tawféexul ko loolu mu jàpp ni yaa ko gën a jege yàlla mu ñëw diis la aajo kon kooku bu ñëwee ne comme da ngay toog ci sab der di ñaan yàlla suñu subhaanahu wa taala fexe nag ba moom mu yëg ni kim ñëw nitu yàlla la yàlla la nekkal su ko defee nag kóllëre googu man moom lay jëflanteeg képp ku may jëflanteel nga xam ne bari na ci ñoo xam ni demoon nañ ba ni bàyyi nañ jëflanteeg dañuy mujj toog te loolu cat la maam dem ba ni sonn naa dañ naa nax ba ma sonn damay toog cat la waaye sama foor daa bokk ci ñooñu laay gën a mën a jëflanteel pour ñu xam ne la fi woon mi ngi fi ba léegi. wallaay la asima ak waxtu wi bari na ci ñoo xam ni dem nañ ba àllaq bi ma dox ak ñoom weesu na sax ñaan ndax loolee la ko waral mooy xam ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci jafe am na ku may déglu nekk ci jafe-jafe dem ba sonn ba bàyyi woon bu bàyyi na continue ndax Sëñ Tuubaa daa waxoon lu am solo ca téereem boobee di nax ju man xar al baaba wala wala ja dani bunt boo ko dee fëgg da ngay tëw bàyyi bis dina ñëw ñu ubbit la waaw loolu kon moom la ñuy wax ci eh, koo xam ne dafa tëju sabu musul suñ ko xamee rek lu ko lijjanti lu jafe doon lu yomb lay doon. ma ñëw ci li ñëpp di xaar ci diggante lii di ubbeeku kaaraange ak eh, bayre eh, ñett yi nag dama faral di koy boole bisimilah. ndax ànd sax nag ndax bu fekkee ubbiku Euh, moom nga am te amoo kaaraange euh, am nga problème jafe-jafe dugg na ndax kaaraange sax dama jàpp ni mooy lépp ndax ku mucc mos wolof da wax loolu boo muccee rek mos am na ñu mos te mucc ñu buñ yëgoon jamono jamono dañuy doo nekk seen digg dënd dañuy mucc ndax senegal moom boo tuddee la kenn ku nekk sa xel dina daj koo xamoon koo xam ni benn milliardaire wala millionnaire mënutu dara te ñàkkoon a ko tax daa njëkk a te mu te muccut waaye ci biir euh, mucc jëmmi ayatal kursi yu am na ci yoon wu ñuy liggéeyal lenn ci ay kilifa wala koo xam ne da yor mbooloo moo bëgg mu mucc wala entreprise boo bëgg mu mucc wala lo kër goo xam ne da bëgg mu mucc am na yoon wu ñu ciy doxale woo xam ni bu dee njaboot la lu dale ci yow ba ci sa juróom-ñaari lu set kaaraange gi day des ci seen jëmm mooy waral nga jox nit ab sëriñ ab tur mu dagg ab xaatim ni la diw mi mënoo ci moom dara loolu mag ñi dañ ko daan def dañuy waajal seen njaboot waajal seen entourage ngir bëgg bu ñu fi jógee lu mel ni shayatin yi ak ak jinne yi ak yeneen rab yu bon yu yàq ak nit ñu soxor ñi duñ mañ ci seenu njaboot dara lool ci wàllu kaaraange moom lay dox bu dee ci wàllu fatxu ndax wàllu kaaraange yi sax wala yow doo ef sama mooy baatinu dëgg-dëggi kaaraange ak ayatul kursi yu ma leeral ñëpp ni leen euh, am na ci yoon woo xam ni boo ko doon def boo duggee ci kër goo xam ni sax dafa am danse balaa ba maam balaa loolee dem balaa loolee di di di di yow di nga génn kër googu bu dee oto di nga wàcc te am na ci loo xam ne day tele waaye dikkal nañu lu baree baree baree baree bari ba ci sax ñi ngay jëflanteel dañuy dem ba buñ naree am jafe-jafe yow yow mii nga xam ne yaa yaay liggéey ay tuuti te xam yoon woowu dañ lay won seeni mbir ba nit ki mën na laa woo wax la loo xam ni danga koy génne ci loo xam ni soo su la ko waxatoon jafe-jafe mën na am ngir doole ju ayatul kursi am ak kaaraange gum am ndax walaa yow doon efsuma yàlla suñu borom dafa wax ni moom lottul ci wattu dara day mel ni àdduna bi planète bi nii la ko tiimee xob bu waddee sax suñu borom nee na yëg naa xob booba wadd gam wadd ak fam wadd ak la ko tax a wadd kon kookee bindi jinne yi ak seytaane yi def àddulu ci seen diggante la sëñ Tuubaa waxoon ne àddal la siina aamanu bi fadlihi wal kaafiruuna xaashiru bi hadilihi nee na yàlla maanute gi mu doxal ci ci ci diggante eh, nit ñi dafa àgg ba ci eh, jullit ñi gëm gi gëm yàlla du seenu njàmbaar mais ngëneelul yàlla la gum leen baaxee ñu gëm ko. yéeféer yi weddi gi mu ko weddi du seenu moon waaye maanu gum maanu seen diggante la léegi nag eh, yu sew sewaan yooyu di di lor nit moo tax ñëpp xam nañ ne nangu nañ ne ayatul kursi wala yow doo inf jinne mënu koo wax. rab mënu ko wax shayatin yi mënuñu ko wax day mel ni bu ñu ko wax day am lu ñu leen di téye ba duñ ko mën a yeggale loolee nag moo taxoon yonent bi alayhi salaam bi aaya bi di wàcc ci moom wax nañ ni wàcc waxtu uh, ñi ni takkusaan am na ay riwaay yu ci bari yu ci yu dañu bañ a développé waaye wax nañ waxtu guddi la wàcc ci moom jibril alayhi salaam moo jiitu di jàng aaya bi lu mat juróom-ñetti fukki junniy malayka ñoo ko encadré di indi aaya bi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañu bi ñu agsee adduna bi rëg-rëgi na yëngatu planète bi yëngatu ba soyaatin yépp tiit daw ci iblis daat ni ko mbugalum yàlla mu rëy wàcc na ndax lii musta am mu ni leen kon de xanaa aayab alxuraan mooy wàcc ñu ne ko aaya yàgg naa wàcc tëmelut nii mu mu yàble ñu dem ci yonente bi aleyhi salaam biñ ñëwee fekk malayka yi sàppe fees dell wër saxaaba yi jibril de sa yonente bi aleyhi salaam aaya bii di allahu laa ilaha illaa huwa alxayyul xayyumu laa taaxuduhu sinatun wala nawm ba ci wa huwa aliyyun wax nañu biñ ko bi mu ko jàngee ñoom dañoo daal di seey ca saasa wax nañu seey sa iblis mi nga xam ne moo leen jiite dani li nga xam ni moo moo ñuy të ba duñ mën a yàqal nit ñi mooy ay bi ay mooy suñu toroxtaange ak wàccam yonent bi alayhi salaam daal di koy sax saxaaba yi ñu daal di koy fonk ca saasa di ko jàpp kon kooku kaaraange ci moom la dëppee bu dee ci wàllu fatxu ayatul kursi yu kun fa yëkkoon la 36 kun fa yëkkoon mi ngi ci biir ayatul kursi ndax boo xoolee. ayatul kursi yu kun fayakun trois cent euh, deux cent trente six la boo ko multiplier euh, par euh, soixante trois da lay jox fatxu maanaam maanaam fataaxu boo xam ne dañ caa dolli quinze mille trois cent cinquante sept nga xam ni kon. Fataaxu boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko boo jëlee kun fayakun nga darba ko ci soixante soixante trois yokk ci Fataaxu da lay jox quinze mille trois cent cinquante sept di limu ayatul kursi yu nga xam ni Euh, xajul sax ci li ñu ci bëgg leeral waaye dañuy jukki tuuti rek ñam su ko defee buñ demee ba ci biir euh, balaa temps bee jeex dina ci mën a mottaliwaat ci wàllu digg diggante fatxu ak euh, diggante kaaraange ak bayre ndax dañoo ànd ñoom ñaar waaw loolu lañ ci doon leeral ci diggante boobu nga ñu laaj. bala nga développé ndax ci àgg nañ ci cëppaandal wala pour jeexal ci xew-xewu jamono. Mhm. waaw xew-xewu jamono nag moom day mel ni moog àdduna. waaw waaw waaw loolu ba tey mën naa nekk maanaam xew-xewu jamono euh, daa doon loo xam ne suñ borom moo ko boole ak jamono. adduna la yàlla tënkee noonu waaye sa sa sa saa bu amee rek dina am lu cay lu cay jiitu ak lu cay xew. Hmm, masalan euh, jamono xew-xewu jamono fu mu mën di toll am na ñaar ñoo xam ni yàlla daa dogal euh, ci dogalam ni seenub xew-xew lu ci ëpp du du fay maanaam lu mën a ñëwit day jékki-jékki judduwaat muy ñaari jaam yàlla yooyu nga xam ni ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi. di euh, président Ousmane Sonko ak kii di Macky Sall ah. waaw ndax ñi ñoo doon ñuy waxtaanee ci mbiram kuje làng politique bi nga ne lan gis ci ñaar ñi. waaw loolu moom eh, léeg-léeg liñ la ciy gis liñ lañ ciy wan nga di ko gis day bari waaye da ci am lu ci ëpp sens loo xam ne boo ko waxee day mën a tekki lépp. dénk rek mooy nañ xam ne réew mi ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la. ala xaal ku mën a toog lu toogaay bi yàgg yàgg yàgg bis dina ñëw nga wàcc ku yéegu it lu toogaay bi yàgg yàgg bis dina ñëw nga yéeg kon jiitalal de sa diggante ak sa borom xam ne lu lu nguur gi neex neex neex neex neex bis dina ñëw rek ñu wàq suul waaye liñ ci bëgg a leeral mooy bu dee nañu njëkk ci Ousmane Sonko euh, ku am tawféex la nag ndax tawféex yàlla moo koy jox ku ko soob euh, li ma ci leeral tuuti. te te bëgg koo tàmbalee muy mbiram yu bëri dafa nuuraaniya wala bokk ci liñ gis ndax adduna dafa mën a soppiku waaye boo sootloo xuruuf yi xam nga ilmu xuruuf dëgg la waroon nañ ko waxtaanee waaye temps bi du ko matee waaye boo xoolee xuruuf yi la ko dalee ci alif ba ca euh, lettre bu mujj ba dafa am zulmaan yu am nuuraaniya zulmaan yu ak nuuraaniya dafa am solo ci aw tur ci wàllu tabia Ousmane Sonko tabi'am dafa not ñim bokkal làng gi waaye ci biir not googu dafa am lu ci lu ci xewaat muy xuruf boo xam ni dafa ëpp doole yeneen xuruf yi nga xam ni moo nekk ci turu ñi muy eh, ñi muy jëflanteel beneen bi ci toppit mooy tabi'am ñu bari maa ngi dégg ñu ci ñu ci wax waaye nañ ci bàyyi xel ni tabi'a la bu naqree maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam encadré ndax dafa laal ci ngelaw ndax xuruf euh, boobu ëpp ci ci ci ci ci ciw turam moo tax mu demee noonee moo tax it am lu bari lu ci feeñ ndax boo xoolee xurufu nuraani yu 903 la 903 fi mu toll boo ci yokkee 90 day jàpp mulku da lay jox aw moom mulku nga yokk ci 903 te 903 Cheikh Ahmed Tidiane euh, radiyallahu taala anhu daana ko juñ lu bari waaw ku xamul ci ku xamul ci 903. te 903 903 bi dëgg dëgg mbiram mi ngi ci ayatal kursi waaye boo seetloo mulku di 90 jàpp nguur boo jëlee 903 boole ko ak moom dalay jox turu Ousmane Sonko beneen bi ci topp mooy al awnu minallaahi tuddoon naa ko léegi mooy 313 313 bii mooy lim bi demoon Badar ñu ne limu anbiya yi waaye ala kulli xaal mooy lim boo xam ni lim buy dund la dëgg-dëgg lim bi mu ngi ci ayatul kursiyu mooy huwa llaahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum moo jàpp 313 moom abbu ko fenn dafa judduwaale ak moom waaye soo jëlee 313 yokk ci 60 jàpp bu doo wodoodo haadi nga yokk ci 53 euh, jàpp kursi yu kursi yu mooy mooy tekki 16 toogu comme fii ñu toog boo ci dollee mulku dalay joxaat turu Ousmane Sonko ba léegi nga xam ne loolu ba léegi ci xam-xam la maanaam génnaguñ ko euh, nga jëlaat jëmmi cinq euh, cinq cent jàpp kursi yu di toogu jël soixante bu du wadud haadi yi nga boole ci trois cent dalay jox neuf nga xam ne kon jëmmi alawnu mina leexi jëmmi mulku jëmmi euh, toogu muy gànguwaay di di kii dafa dugg ci awturam te yàlla dafa bëri ay ay mbir miraat boo xoolee nag loolu lépp boo ko boolee am na laabire buñ ci buñ ci bëgg a def tuuti ginnaaw buñ mayee benn sarax boo xam dañ koy jox addiyee Sëñ Tuubaa képp koo xam ne def nga ko mboolem jafe-jafe yoo nekk di nga xam ne lii nga def nii génn na la ci jafe yooyu waaye balaa boobu ñu xam ni am na tamit tuuti loo xam ne buñ ko ko doon dénk dañ ko koy dénk waaye loolu day doon loo xam ne mbirum biir la ci wàllu fonk dëgg-dëgg ndax ñoom sax dañ koy def ndax ismulaahil azam gaay yi ngay gis fii yëpp ñu ñuy xomto ci suuf dañuy yor kurus di zikar waaye yoon wu ñuy jaar ba loolee bënd ba ñu leen bëgg a yàqal seen tabian yi du am loolu nag moom beneen mbir lay doon ndax da ngay gis koo xam ni bëgg naa bëgg naa bëgg naa am tur yàlla waaye xam-xam bu mën a am ba kenn du ko mën a faqastal te li bëgg dina ko am ndax biddiw day baax lool ni ñi yàqu waajuru jigéen day liggéey ni ñu yàqu ko yooyu yëpp nag lay tax mu mën a bañ a fànq mooy nga jéem a xam na nga koy na nga koy détruire moo tax Ousmane Sonko moom bu fekkoon yàlla dogal na mu bàyyi xel lu baree bari ci entourage am mu bëgg bu ko yàlla soppiwut mën naa nekk waaye bu dee ci jëmmi Macky Sall moom lu ci baree bare retard dafa am ci digganteem ak lu mel nii baatin waaye retard boobu it mën naa nekk euh, loo xam ne duñ ko mën a wax waaye mën nañ cee juñu dara mm-hmm. nit dina toog ñu wan ko ci gént loo xam ni sarax la bu war a génn wala lu mu war a def wala lu mu war a bàyyi comme na ma ko waxee woon te loolee lu koy jariñ la mën na laa ñàkkloo nguur na la ko am soo ko defut sa nguur mën naa yàqu bi isnillaahi nag soo soo ko defee mën ngaa jotte la ngay yóotu bi isnillaahi waaye loolu faw ku am xam gént comme ni ma koy leerale mën la ko firi leeral la ko te loolu yàlla dogal na euh, du ñu bari sax laa koy defal ndax léeg-léeg ma wax ci nit loo xam ni day mujj sax jàpp ni bàttin la fekk du bàttin xam-xamu yàlla la bu ma yenkewal ma xam ko di ko defal nag ay kilifa moo tax na Ousmane Sonko moom liñ ci mën a wax daal mooy xam naa bu ko yàlla dimbalee te mu am yoon mu mën a jaar te fonk sarax fonk na kilifay yi diine yi naa la xamal benn affaire tey yàlla lu muy joxe benn yoon la koy joxe kenn la koy jox kilifa yi yi ci Sénégal yàlla xës na leen dénk Sénégal ba noppi ndax dañ fee njëkk taxawal diine sonnal fi lislaam sonnal fi yonent bi alayhi salaam képp ku bëgg loolu faw nga respecté leen loo bari bari gàllaaj loo bari bari ay pexe saa buñ nunguwul rek kenn nungu ndax bu guddi jotee kat xamal nii li ñuy gàllankoor ñooy toog di ñu ko tinul te ñoom la yàlla déglu nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon lu mën a xew nañ sóoraale kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal joxaat leen wàccuwaay ku ci bëgg dara lépp looy bëgg na nga ci boole lépp lu ñuy bañ ba ndax ku la man di samp ku la man di fal bu nee déet dara du xew loolu ñu ñuy yëngu ci wàllu kurus xam nañ ko moo taxit léeg-léeg may ragal ci ñuy wax naan nangam dina xew wala nangam dina am ndax di nga gis koo xam da nga koy wax mu toog ca saalam yor kurus yàq loolu ba dara dootu xewati loolu kon mooy liñ ci mën a leeral ci actualité ci diggante Ousmane Sonko ak euh, Macky Sall ndax it man du ma ci bëgg a xuus ndax dafa bari ñu ma ciy jëf itteel te wax dëgg yàlla am na loo xam ni waaw ci ci waaw maam ñi nga xam ne ñoo leen jige lool waaye nag am na noo ciy waxe rek dañuy jàpp ni xay na kële nga àndal te nit ñëw nag di am lu mu bëgg ci yow da ngay tëdd ñaxañaay man ngaa ñaan nag yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye nag la yàllay dogal moom da koy koy ak borom bi nga xam ni mooy rabbu samawaati wala. 2024 soreetul de faloom nag président Ousmane Sonko. waa 2024 soreetul waaye ak faloom dafa nekk ci suñ borom subhanahu wa taala man na lañ tee wan dara na nga wax ko waaye yàlla ay mbiram da koy soppee nu ko neexee xam nit ki day faloog du falu du du xarwa maanaam nekkul lu lu lu yéeme. li yéeme mooy nit koo xam ni dara daa war a xew maanaam ci biir falu gi am lu war a xew nga téye sa kurus dëgg ci sa tànk ba loolee du xew loolu daa gën a gaaw ni diw day falu. man na ko wan nag mu leer naññi naññi naññi ba nga wax ko yàlla soppi ko te teewul lañ la wax gis nga ko. nag mooy képp koo gis ci àdduna muy wax rëy xamu ko moo kuy wax ni jinne am naa ko ñooyam ndax fi doolu euh, masalan képp koo gis mun la am na jinne dee ko seetlu bu ngeen toogee xetu jën moo koy xeeñ moo lay xeeñ yow te lu ci ëpp du doon ku ku wér normal ndax loolu dafa am jinne yoo xam ay jullit lañ am ñoo xam ne du ñu ay jullit waaye foo gis ku koy wax defal attention ci moom ka ko am du ko wax ana analyse huwa wolof di wax ni eh, lëm manum lëm moo gis soo demee doo fa gis lem waaye daal li ñu la mën a xamal daal mooy ñoo ngi leen ñaanal jàmm ndax buñ ko amee ñëpp am ko te ñëpp suñuy doomi réew la ñu te liñ bëgg mooy defar Sénégal rek defar Sénégal nag moom boo ko bëggee jurul xeex jurul xuloo waaye alaa kulli xaal daal maa ngi dénkaane di wàcce waale sama kaddu di joxaale loo xam ne maa ngi ko waxoon dama koy joxe addi Sëñ Tuubaa yéen ñi nga xam ne yéen ay ay ay wala di taalibe di sàkku ci dara ci nit moo xam ku man di doon bu leen fàtte seen seen seen warugar ku ci am sa waajur muy dund loo man di def na nga jiital sa waajur wu jigéen la tax mooy nit ki bu ko waajuru muy jigéen bégut ci moom wala ay waajuram kenn mënu koo ñaanal ba am la mbëgg na ko ñëpp xam bis ni ki tey bi ci toppit mooy àq fayut kenn mënu loo ñaanal bala nga bëgg nga am ko wala def-def boo war a def te defoo ko kon képp koo xam ne yaa ngi sàkku dara na nga jiisal sa warugar man moom damaa ñaan ci tur yàlla ñaan ko ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñaan ko ci ayatu kursi ñaan ko ci sëñ Tuubaa te gëm naa ne may noo ko muy képp koo xam ne sa waajuru jigéen amoo moom liggéeyalu sa biir ko waajuru góor yàlla boo ma xam bay jëflanteeg man ndax sa aju mënuma ko faj soo ma naree war sax numéro ba yàlla nga juum man man loolu te tey teg naa ci ni képp koo xam sa aju nootu faju doo ma fekk ndax foofee mooy dëkkub almaxfuuda boo xam ne sëñ Tuubaa ko sanci wax fa lam fa wax loolu du ma fa sori waaye daal li may mën a baaxee nit ñi ngir jëm yàlla eh, ci wàllu sarax boo xam ni day dindi ay gàllankoor muy miskit bu weex bi nga xam ni dafa dëgër maanaam nga xam ni eh, xam naa dina war a am bokkut ak bu suukar bi waaye day mel ni lu sëfut suukar ni te weex waaw ku ci wutu limu eh, mille quatorze maam ñaar téeméer ak fukk ak ñeent nga séddale ko ci cent cent maanaam jël mbuus weex wàññi cent dugal ci wàññaat temps dugal ci bam doon onze mbuus lay doon yu doon cent mu des yi yooyu nag boo ko cee dugal benn bu ci nekk da nga ciy jàng basmala bismillahi rahmaani rahim nga ciy jàng ba mu yegg jàng ci ayatal kursi yu soo àggee ba ci walaa yu oo doo infsoma nga baamu ko juróom-ñaari yoon wal ci doo tifle da ngay wal rek teg ba cent quatorze mille mille quatorze yi mat nga séddale ko ci cent cent yooyu nag ngay jël joxe ko ci ñeenti xibla yi. maanaam penku sowu gànnaar ak saalum soo dee def nag da nga koy yéene ndax indi maaxamal bi nga yéene li nga bëgg ci dafu ak jalbu li nga bëgg yàlla defal ko ak li nga bëgg mucc wallaahi la asiimi ku ko def di nga yëgluwaat ne lang ma waxoon def naa ko te gis naa ci njariñ joxe naa ko addee seen jubaa waaw <laughs>